xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi diggante Belende Bébé Birahim Bébé Birahim am na loo xamante ni def na ko ci tànk yi Belende dóor ko ñooy noonu ci digg géew bi abit baa ngi xool ki nga xamante ni ni mooy Bébé Birahim di xool niin naam wala niinul Belende pare na abit baa ngi wax ñooy waxante seen biir Bébé toj na nen yàq nga cuujeex omelette abi jox na avertissement ki nga xamante ni mooy Blindé deux avertissement pour kan Blindé am na deux avertissement Bébé am na benn avertissement abi baa ngi wax ak ñoom li lamb nangu ak li lamb bañ waaye mbok yi laata abi bi di jox na ki nga xamante ni mooy Blindé ñaari avertissement jox Bébé Birahim benn avertissement abi baa ngi laaj ay juge am juge pare laaj na ki nga xamante ni mooy Bébé Birahim pare nga laaj na ki nga xamante ni mooy Blindé pare nga Blindé mbokk yi moo ñu wan ginnaaw Bébé Birahim moo ñu dem moom lañu jaakaar lool combat bi bar na ñoo ngay demee wet Blindé moo ñu moo moo féete à gauche. Bébé Birahim la ñu jàkkaarloo mbokk yi boo xool ñoom ñaar xaw nañu tolloo ki nga xamante ni ni mooy Belende moo takk mooso bu xonk bi ci bopp bi Bébé Birahim moo takk mooso bu weex ci bopp bi xale yi nañu taxawaay poids lépp ñoo ko tolloo ñoom ñaar waaye mënut a xeex ñaari njool lañ bala ñuy jàppante faw ñu jëflante ba noppi ñoo ngi demante baam waaw xeex mënu cee ñàkk. waaye kii di Belende daa mel ni jàppante bee ko gënal ñoo ngay liwaatoo ñoom ñaar Belende door na Belende door na Bébé Birahim ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex Belende Belende Bébé Birahim ñoo ngay xeex du ci am dàquma ci kaawo de ñoo luy xeex Bébé Birahim ñoo xeex kaaw na kaw na kaaw na kaw na kaaw na daan na ko waaw waaw Belende daan na Bébé Birahim Belende door na ko mu daanu nee naa la xeex mënu cee ñàkk Belende door na Bébé Birahim mu daanu Belende door mu daanu nee na affaire bi man la affaire bi tey yow la Belende door na Bébé Birahim mu daanu dañoo xeex ñoom ñaar Belende door na Bébé Birahim mu daanu. ma jox si ponkal si ñaata mënu ma ko lim. dëgg la nañ ma jox si ponkal yi ñu dóorante jàpp bëri. foo jëm fan nga jëm. fu ma jëm na Malick ñaa ñoom bu bëri. Malick ñaa bu yof. Malick na ñoo ñu bëri. dëgg la ñu ñëpp maa ko mun. tey lépp supporters yi lu ko war a sax la. waaw ay décès yoo xamante dafa am sama koñ. mooy sama tëggkat bi ku ma waroon tëgg asiko. buloo dafa am dese seen koñ quoi bàjjanam moo koy ñaanal jàmm ak salaam loolu tax sama tëggkat yi ñëwuñu man dana maa pare gars yi jëkkati xaalis bu bëri may ma ay ñëw Moustapha kan sama mag bu ma bokkoon ndey baay mu ngi ba France wante amul jàmm maanaam ak conseil laa bëre du ko bàyyi muy bëre sama kaw du ko bàyyi mu bëre sama kaw am tuuti comprendre damaa pare pour bëre lu mu wax noonu loolu tax mu duma ko damaa bëggoon xeex ak moom cinq minutes barke yàlla champion la